asalaamaaleykum mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di wax képp kuy gan ci chaîne bi ñoo ngi lay ñu dugal di nga bokk ci ñu koy njëkk a gis wéy leen di like leen di commenter également te di partager vidéo yi lu ci am bi nga xamante ne jamono yi coow li bari na ci moom loolu mais jamono yi ngi naan waa Bayern dañoo bëgg jaay ki nga xamante ne Sadio Mané fekkee ne am na bu baax bu ñëw ci table bi donc ñoom pare nañ ngir jaay ko loolu lañu ñëw leeral leen ko ñu dem ci pa page publicitaire bi te ñëwaat. da nga am jafe-jafe ci sa wàllu dund rab daf la sonal cat jàpp la loo yaakaar mu tas sa wërsëg dafa tëju sa loxo bënn loo yor du taxaw nga bëgg borom kër wala soxna mu jafe la lool sa bopp jaxasoo sa ëllëg jaaxal la lool loolu yëpp bu la dalee solution bi mooy dawal seeti Serigne Mohamed Diakhaté Asrar di borom xam-xam bu mag bu yàlla may ci li saxaar bu leer ak ñaan ci wàllu lasraar yow mi bëgg a tukki bitim réew visa jafe la lool wala nga tukki bëgg ay kayit ngir ñibbisi ci réew mi mu jafe la dawal seeti Serigne Mohamed Diakhaté Lasrar amu ci morom boole ay xol yu dëngoo ba ñu ànd bëggante bëggante bu jéggi dayoo ak listixaar bu leer wax la say mbir ba nga xam ne kii gis na la loolu ñëpp manqué woon na ñe Serigne Mohamed Diakhaté amu ci morom ngir jokkoo ak moom woo ko ci numéro téléphone bi 77 334 83 80 wala 78 201 82 44 ak Serigne Mohamed Diakhaté Asrar aajo yëppay faju comme ni ma leen ko je rek un l'international sénégalais Je ji nga xamantene def football mondial ak football africain également particulièrement bu Sénégal mom nak eh, jamono gis ngeen eh, ciow li bari na ci mom lool. Eh, dem wax que Bayern ngir offre table bi mais tay confirmé nañ ko c'est confirmé euh, d'après journaliste bi di Patrick euh, Gillard muy donc journaliste bu mag bu nek fële ci Europe mom confirmé na affaire bi nee wa Bayern euh, ñom instant bi prêt nañ ngir jaay Sadio Mané fekkee offre bu baax ñëw na ci table bi et également de même que joueur bi di Sadio Mané donc mom timit instant bi ni fekkee gis na tamit club boo xamante ne intéressé na ko et que proposé na euh, projet sportif boo xamante ne convaincre na ko donc moom tamit pare na ngir euh, quitter club bi parce que actuellement Sadio Mané nekkul à l'aise foofee ca Bayern de Munich depuis bi nga xamante ne euh, al altercation bi amoon ci diggante moom ak Leroy donc gis nañ loolu lépp am foofu noonu mais en tout cas lu ci mënti am rek y a des clubs yoo xamante ne pare nañ ngir accueillir Sadio Mané de comme Olympique de Marseille bi nga xamante ne instant bi seen fancy donc lancé nañ benn hashtag. Euh, daal def euh, Sadio Mané OM comme ni ko defoon ci Cristiano Ronaldo jamono yële passé euh, bi mu amul woon club donc waa Marseille ñoom vraiment dañoo bëgg Sadio Mané mais également y a d' yoo xamante pare nañ ngir accueillir Sadio Mané ku ne xam ne Sadio Mané c' un grand c' boo xamante ne tey bu ko club bu ko bu bu ko paree pour jaay ko donc club yi dinañ ñëw et que dinañ pré teg offre baax ci taal bi. en tout cas on espère que ne Sadio Mané dina ñëwaat ci meilleur niveau ma lool mo ci ëpp solo ñëwaat ci meilleur niveau et que nous lañuy xaar ci semaine yi ñu jëm li leen di wax like commenter